te ñu ngi luus na luus go xamni ne wóoluwuma ko ci kër gi. te am luñ ma wax. ma nit bugguma bàkkaar. foofu duma la may. fofu duma la may sa ngay naa non seq ñing la. soxna yow man mii soo man xamé xàmmeetuma la dé yow man ak yi ngay woné ci kër gi ni ak sa fulla jeeg ki bi ni ah yow do xol di surveiller sa kër gi li fi xew. wala la surveiller ci kër gi man lima wara xol a koy xol lima wara li ma war a ah. wala dafa am leneen du fi xew. nga war xol nak principalement bu njëkk moy sa entourage man ma fiir man ma fils di man ma fiir si sama xol sama xol mo fiir man xamna ni ne même bu ma fiirul sax sama xol mo fiir parce que man homo mbogel demi mozil ah ñi ngi de li bu ma ko ci do ba japp ko ci moy genn kër gi duma wax nañ ma lu ne ma tok mais dina def li def lolou ma réglé ko ba tek ko ne mam maam dotul waxati waxatu waxu kaw de keroog bom mu ma ko waxee ko defati. ma yaangi nalaw gis nga ñom ñaar ñi hmm. ñi ngi génn lu fatta tar ci kër gi. ci biir kër gi la waxati lolou man bala kontan kontaan. dama lay tap ba nga noy xol li sa yaram bi ba mu ko jël asib bi di ko wis ni bu dee ñeme nga nag acca nañ ci dem loolu moo tax gu ak yow fenn fii duñ mhm. ko bàyyi mu dugg si biir kaasoon naa ko ñu ni ma da dangaa siis beneen bi stop li mu def lu tuuti la li gën a rëy mooy sa yaay lay dugal kaso sama nawle la sama nit la ah nit ku baax la it boo ko amee am jëkkër soo ko amee it am ku dal ku teey mhm. nit ku mën a yor jigéen it dong bu ma fi jiiñ dara waaw gis naa nekk la ci biir dama doon wax dong. xoolal man damaa sonn ci wax ji. yow wóolu ma la dara maa ngi dem noppaliku ci sa waxtaan du jeex tegal foofu sa baaraam ba may noppaliku ba ñëw. man de dama doon wax dong. yow dama doon wax dong. yaa ngoog rek wax hmm. eh, peegar la kii. <laughs> Eh. béykat nag moom foog ñuy communiquer foog ñuy wax ak ñoom moo mën cee ñàkk nag nante la nag xam naa ne moom nante la nante kul fitiril nante la kul fitiril hmm. waaw fe sant yàlla waaw lépp jàmm ñu ngi sant bu wér Ah, tey moom sa yaram moom danga ngaa xaw a kii nii. timide timide di wax naan timide ah. da ngaa xaw a timide yaru. <laughs> naka jë mm. moom naka jekk moom yow nii la la yàlla bindee. waaw dëgg la yaru nga teey nga am yëg-yëg ci nit. xam nga tubaab dafa ne reconnaissance. wolof mm-hmm. ne yëg. nit ki boo koy defal àdduna la ci biiram te yëgoo ko it c'est comme zéro. dëgg la ma neex ci yow mooy da am yëg-yëg ci nit. Mm-hmm. yàlla la yàlla defal jàmm amiin yaa rabbi ci ñaan bi yàlla yàlla musal ci seytaane la wér ak wér la sutura teraanga bu saawaan baawaan bu kaay suñu jortuwaay su am na ko mën na ko ñu ko def incha allah yàlla yooyu yàlla na yàlla defal jàmm allahuma ñu bokk lépp musal la ci la ci kaso kaso waay xaalo ñu xor xob ñu furoo nag furoo furoo nag am na yoo xam ne moom am na ma ba tey hmm. wëlis googu ngay wax ni tur wa sax du ma ko tudd wëlis. dëgg la mosuma faa jege. Mm. mosuma faa jege parce que du ma ko def lu ma fay yóbbu wala ma koy wax. dëgg waaw. Mm-hmm. man dama xam fi may fi may teg sama tànk xam lu may wax sama làmmiñ wi loo xam ne du ma dugal. dëgg la dafa gaaw. dafa gaaw dëgg la te fële ne dixième. Euh, mm-hmm. ay mitti na. amoon naa champ benn waaye bu fa nekkoon waaye nee ma pakataas ba. Mm-hmm. pakataas bu dal na ne euh, mel ni kuy riime ay miisu mburu ma ne ko ne ko man mi jabet nga xam ne damay jaabante di sow <laughs> bul ma bul ma pakatee ma wakatee ma sow sow fan laay jaar ay yàlla nañ ci yàlla musal. amiin amiin musal ci mbooloo mi. Ah, yow de moom ñaana ma musal la ci ndax xam ah. naa ni ah, yii enquête yi ma def ba jot ci mooy sa téléphone ak sama bu yaay dama doon def li may def te kenn yëgu ko. mu ne eh, eh, kiya dama ni sa telepon waaw ak sama téléphone yaay waaw dama doon def loo xam ne kenn yëgu ko maanaam dañ leen a topp seeni appel tracé leen suñuy appel suñuy téléphone waaw ñi doon waxal ñëpp te yéen a doon wax ak benn sëriñ te ak sama yaay yéen a ko lonko dama bëggoon nag nga wax ma ci sutura xam dina yam nga sama yaay man du nangu dugg te sama yaay bu duggul doo dugg bu duggee nga dugg dama bëgg nga wax ma ndax jabu li ko génne fii sa loxo mi ngi ci ak sama yaay wala déet ndax téléphone ba la ca ne yëpp mu ngi ci loxo yoon te xam nañ ko te xam naa lépp ndax sama waaye liggéey foofu. yow da topp sama téléphone may samay communication. loolu xanaa xamoon ne loolu nga def yooyu mën nga cee dem tëdd la ca pakataas bi. duma ci tëdd parce que dama leen a porté plainte. kan nga porté plainte. yow ak affaire jabu beeg sama yaay x laa def. kenn gi tudd waaw dama ni. waaw waaye bi ñu gisee bi ñu xoolee sa téléphone gis nañ la. waa yéen lan lan moo tax ngeen di xool sama téléphone Ablaye lan ngeen xool lan ngeen sama téléphone lan nga lan gis sama téléphone ba koy xool loolu mooy lan. appel yi nga doon def. yi ma doon appel. appel yi nga doon appel. waaw sama yaay di ko di liggéey jëm di wax ay waxu naaw talak yëpp am nañ ko xam loo bëgg am na wala amut un des am na wala amut. apa? Men, buat tegial, tegial belas. Men, men, men def ma dara. lan nga dégg ci téléphone ma wax man jàmme kese laa wax lan laa wax man waxuma dara sa yaay laa doon dong moom laa doon dimbali dong noo ko dimbalee waaw waaw yow yow xanaa gisoo sa yaay li muy daj ci kër gi yow gisoo sa yaay li dërëm mi dërëm mi euh, euh, li ko def gisoo ko ah yow gone gi nii gi gii gii gii gii mu taq nii yow yaa ko mag ah dërëm moom war nay war na sangu xale di ko yërlu mag du du sangu xale di ko yërlu mooy lan bi mu taq nii waaw ah waru ko taq buy taq na taq ko commencé moom jamono looloo métti sa yaay looloo métti sa ndey sa ndey ñëw wax ceeg man ma ma ma ma ñeewantal ko dama ko ñeewantal dong ñeewantal dong laa ko mu ne man ndax amoo fu ñuy defee ñaan fu ñuy kii ma ko man xaw ma keneen xaw ma mbiru ñaan yooyu ci boole laa xam ànd ñooñu man daal loolu daal moom laay def waaw boole ko suñ cuq suñ cuq waaw suñ cuq waajur gàtt ñooy coqale booy te dëkk foofu noonu ca côté terrain ba. yaa ko boole ak moom. waaw waaw. après sañ cuq def lan. waaw mu defal ko ay ñaan rek. defal ko ay ñaan pour yëpp sedd. ñaani maanaam lan la. da ngay wax ma dëgg rek parce que xam naa lépp dama lay enquête nii rek wax ma dëgg moom mën la protéger protéger sama yaay ñu gas suul mu jeex. mu gas lépp suul ko benn yoon mu jeex wax ma dëgg rek waaw ci sutura kenn bañ a dem fële dixième. kenn du dem fenn. moo tax ma bëgg xam. tax kilifa laa moo tax ma bëgg a lépp mu jeex. lépp nag sëñ cuq la neexul ba neexul waaye sëñ cuq mhm. doom la du nitu dara dara dara moom liggéey bu pond ak la mën mu ne ma dina ko débouché débouché naawtal ko mu génn kër gi ma ne ko loolu ceru ko nañu ànd am ànd ci jàmm jàmm ci la lépp xaj waaye kii nga nar a dëddaleeg jëkkëram mu mel ni caas ak safara loolu du dëgg du yoon wax naa ci nag wax naa ci moo tax ba mu defee li muy def sa yaay moom sax dafa ëppal parce que kaani ga la waruloon suivi fii ci kër gi kaani gu man kaani gu mokk ga. Ah, moo kon kaani ga yëngal kër gi. gowaana kaani gi moo ko suy pour xale bi bu duggee rek chef kaani kër gi chef kaani mu débouché génn loolu mu nekk ci jàmm seen sa ndey nekk ci jàmm nekk ak sa baay ci jàmm ak salaam moo gën mu génne xale bi mu dem yoonam loolu dong la. loolu dong la ci sutura nag laa la ko wax ni ñu ngi ko lijjanti ci sutura. sëñ Cuq mbaa mën na defaat xale bi ñëw. ah aajo aajo na mu ñëwati. non dama ni. déet bu fekkee bëgg nga jàmm bëgg génn ci lii xale bi mën na ñëw mais du ñëwaat ci kër gi mais mu dellu ci ndeyam bu fekkee bëgg nga génn ci lii wax ma ma regle ko ci sutura da nga jox ma numéro sëñ Cuq ñu dox ko ci coow bi jib ñu réglé lépp doo ci yëg kenn du yëg ñu gas ko suuf ko fii sama yaay du yëg. waa mais mais ki kër ki def sañ tuq yàlla may li mu def yàlla mën na ko may mu indiwaat ko kon demul seen kër kër ndeyam déedéet xale bi kenn xamul fu mu dem loolu ëpp suñu bopp waaw sañ tuq lu muy def nii nag waaw moo tax te doomu jàmbur la jàpp ci doomu jàmb man kay dama waxoon boo koy nan kii nga delloo ko kër ndeyam waaye waxuma nga naawtal ko muy dem ci mbed mi kenn xamul ko fan la ne kenn xamul yaa jama ngay jooy sonn na léegi dama lay ñaan ndax mën na ko dellusiwaat te nga jox ma numéro ma ne. waaw ci ma la jox numéro am bàyyil ma dem. non non bàyyil ma dem léegi ci sa. waaw waaw jox li ma koy wax dinaa indaale femme bi fii. déedéet léegi man. parce que sama yaay bu ko yéegee di nga am problème dërëm bu ko yéegee di nga am problème. waaw bàyyi ma lijjanti am problème. yoo papa de jox ma numéro sëñ jox ma jox ma numéro am bind ko ماني لا آه، لاي بنا ما في شوك بنا بنا بنا اللي مولو بنا بنا شوك بنا بنا ك ك كيرو ما بي بي دم كو كيرو خلا كون بلو بوليس واو دينا واو شوك ده بنا ما وا وا دم كو كيرو بنا بنا ما ني مولو بي بنا بنا بنا خارج من خولي أشار ديد بنا بنا ديد بنا ديد بنا بنا بنا بنا يارجو بنا بنا رك ما رجلك قديسو بنا de xam naa ne bu fekkoon saa yoo xëyee ne ma yaay yëkkati ñaari junni jox ma ko man boo nee yaay rek sama fit bi day day day tëb doomu kii sax tubaab bi tudd di wax maman comme noonu wala di ma woowee maman xoolal loolu dafa neex lan la maman ah, ah. ma defar waat sax ah, nii laa ko bëggee maman xam nga fan yee ci ginnaaw. Mm. toog nañ fële. waaw. ma ni la bu fekkee dafa am loo def. Mm. wala dafa am ci loo dugg. Mm. nga wax ma ñu waxtaanee ko ñu defar ko ci sutura te problème du am. ñu régler lépp am na wala amul. waaw loolu léegi ban problème moo amaat. yaay lu tax bi nga xamee ni dangaa def. ba pare. ma woo pour ñu waxtaan yaay nga may nëbb te yaay xam nga ne yow yaa def. waaw man lan laa def. yaay demu jabu bi gisatoo ci. toujours jabu bés bu nekk rek jabu waaw man jabu lan laa séq moom ak jabu man man man man man jabu aw ma jotam ah jabu jabu jabu ay waay lii ba jàmm la. yaa ko mag ah gërëm moom war nay war nay sangu xale di ko yërlu mag du sa du sangu xale di ko yërlu yaa ngi dégg xale bi mu takk nii waaw ah waru koo takk buy takk na takk ko commencé moom jamono lolo métti sa yaay looloo métti sa ndey sa ndey ñu wax ceeg man ah ma ma ma ma ma ñeewantal ko kama ko ñeewantal xam nga kii wax kan la dong ñeewantal dong laa ko mu ne ma ndax amoo fu ñuy defee ñaan fu ñuy kii ma ne ko man xaw ma keneen xaw ma ñaan yooyu kii boole laa xam ànd sama ndey lay wax de yow la hmm? boole ko suñ cuq suñ cuq la la boole dégg ko ah gàtt ji cuqale te tudd sama tur de tudd sama tur de yaay man weddiwuma sax ne man mës naa waxtaan ak moom hmm? waaye waaye moom tudd sama tur dégguma ci mu tudd sama tur man dama ko dama doon waxtaan ak moom dong di ko laaj loolu dong laa ci doon jublu waaw moom waxtaan kese kese ci doon laa ci doon jubluwuma ci woon dara de dama koo expliqué rek moom am ci man yërmande xam nga dafa am loo xam ne dafa neexul dafa neexul nga sëy nit ki ñeent fukki at wala lu tegal wala fanweeri at mu xëy xëy rek hmm, ñala da lay taqal xale bu ndaw hmm. loolu rafet na waaye man jubluwuma ci woon lii te bu ma jógee tamit di di di di jox kii mu may demal di may yóbbu tamit ca kii man dama ne ko woon man daal ni sama jëkkër ñëwaatee ci man rek laa bëgg man xaw ma woon ne sax da koy da koy da koy da koy kii après nag ci ginnaaw laa xam la la laa kii xamatuma sax lu may wax waaw. dama bëgg rek nga jéggal ma yaa yaa mu yem sama diggante est-ce que yow yaa ma jur yaay est-ce que yow yaa jur yaay est-ce que yaa ma jur yaay yow li problème bi di nekk ci kër gi di tar yëpp chaque jour ma woo la sam naan yow la kii naan lii la kii naan laa la ku ne ne yow la ma défendre la fu ne yaay ndekete yow ak ñi ngi yéen manigancé dem ki sëriñ wa sutural mo waxal ndànk ñi mom toroxal bi ko toroxal ki suba ba mu genn ko ci kër gi té paré go ci mom de ndax police la jëm ak moom waaye yóbbu sa yaay police foko gis té mu ñi ngi di nga dem ñi mom do dóor rek la ko def ci suba bi koñ bi ñepp genn nañ ñi ngi ndekete ñi ko ñi ko sutural fat ko ci kër gi diko jox muy lek diko jox muy naan laaj ñuko dara nga ànd ak moom di def jëf ju bon ji. yow sa papa lim ma def nag. sa papa lim la def léegi doomu jàmbur ji nga jël ne ne ko farax mu dem yoonam kenn xamul fu mu nekk xanaa moom amul yaay yaay moom sonnul ndax lan wujj yow yaay ku jëloon sa doom def ko yow yow yow rek yaa amul naqar ki sa doom yow rek la ardo génn ko lijjanti woo ko toppatoo woo ko xooloo ci lu mu ne xamoo ki dara mel ni juróom. xanaa xamoo ne yaayam man ba ma demee ci ki ma seetal dafa ne ma euh, sa papa da koo naawtal da koo jox mu lekk. jox ko mu naan sa papa xam nga ne nii muy doxalee nii ak jab du du kii yaay ba tey yaay expliqué yow yaay danga am loo wax. waaw baal da li ma bëgg a xam mooy ki def lii mm. ban solution la am pour li mu def muy indiwaat doomu jàmbur. Ah. man sama yoon nekk ci digganteem ak sama papa na tas ak na ne mais na dellu ci ay loxo ndeyam laa bëgg parce que doom la nag ah te yàlla xam na ni lii di ko layoo li nga def nii. yaa ngi dund muy neex de mais ëllëg lu mat a sóor la lu mat a sedd la ndax dinga nga wéet yow kese ah damaa bëgg nag nga wax ma waa ji ndax li mu def dina indiwaat doomu jàmbur lu ma laaj ma jox ko mu delluwaat ci loxo ndeyam leneen lii ñëw nag yàlla xam mais xale bi fexe leen ba li ngeen def ba mu dem ngeen defaat ko mu ñëw mën na nekk wala mënta ne yaay ah. loolu de mooy problème bi. ndax daf maa waxoon. sama yoon nekku ci. su demee loolu li nga wax waxuma ko. damaa bëgg nga ni ma dina nekk. ñu réglé ko ci sutura. wala mënoo wax ndànk ñu ko ci sutura non wax ma. dama yàkkamti sama xol a neexut danga ma bett. waaw man waa baal ma. baalu ma la du man ngay baalu. baalu suñu borom ak ak yaayam léegi dama ni waa ji ñaata lañ koy jox li mu defoon mu dindi ko indiwaat doomu jàmm mu dem ñaata nga ko fayoon. fay naa ko cinq cent mille xam nga six yaay loolu nga fay foo ko jëlee Ablaye nag non damay laaj waaw bu ma rey nag bu ma doon li gàcce nag maa ngi dee de damaa damaa toog nii rek waaye dee naa de rus naa nag eh. nit nag kenn du ko toog sa samaay sa yaay wuy ma suturaal damaa bëgg nga déglu ma suturaal ma déglu ma fiir moo ma dugal ci lii ak jaxasoo dama ne li nga waxuma ko suba dinaa la jox deux cent mille sama yoon newu cinq cent sept cent yi nga def lo meuna def. suko meunul dindi nak bu ko meunul dindi. Mm. senegal yeb dinañ xamni yow te xoola yàlla xam na ni buñ la yobbo fele duma ci ñang duma ci ñep foofu rek la yeb bu fekke ñame nga dem fele san naw la yeb xamni li nga def ya ko def te yobbu nañ la kasso nga zéro ko. yow am nga xol bob ab tay tay nga may xam. xam nga am nga xol kaful de ah, ay way nit buy def war te man man man man sëñ Cuq damaa waxoon lu leer est-ce man xamante sax man fan laa fa man fa man lii dama koo taal mu dem léegi man fan laay fa fan laay gisee ngelaw li wala man man la ma taal fan laay gisee desit bi ah liñ naan nag fiiraange day raye ah waa baax na waa ay waay laay mi kaaw kaaw kaaw kër gi tey toj na de. ah damaa génnoon. yéen waaye ni ma gisee kay kër bi ni ma ko gisee nii xam naa ne kër bi te doon yëngatu kay. seet teet teet teet teet. waxal nag mooy xam lan ngay wax. mais mais mais mais moom mais mais booy naka naka laay naka na leen de. Abalaye Sow waaw. ah. waaw laay waxoon na ma ko newoon na ma naka laay bi am na beneen laay ba la si waaw Ablaye nag kaay Ngolo dafa tàngate. yii Ablaye xamoon na bi muy nekk xale. waaw mus na cor benn booy jaasi. xalam la jaxaaw la ko core woon. keroog ni ñu sonne. non laay papaam ne da ko yóbbu police. xam nga lan moo ko si génne. waaw mineur ñu ne mineur la mineur. ah ñu ne mineur la. waaw boppam mineur la moo tax mais ma ne ko yow tuddoo goo sax soxor nii. walaay man. walaay laa la tey ah te damaa tiis sama. Ah. waaw ma ma xam ma yaru doon xeex ñëng kan laay laajte nu mu def ñëng fii ah yee lan la def lan la ñëng ko kon ah waay yow ya xamoo xamoo xam xamoo yow Ablaye dafa mel ni ñëng laa ñëng moo a gaal si sooda waaw xamoo jëbb dañ ko naawtal jëbb dañ ko naawtal jëbb ah. jëbb <laughs> wan eh eh eh eh ba eh, eh. pare lu gën a garaaw ndaxte pitax yu voyageurs yi. si leen takk tuuru jëbb mu naaw. yooyu moom dañ koy dund dund yi dund. waaw oh, sama waay euh, allo waaw Cheikh Omar Baar Cheikh Omar Baar maa ngi lay jaar jaar jaar Sarr macha allah yaa ngi ci mbir yi ba léegi ci affaire jabu bi ah waaw ba léegi de ba léegi de Cheikh Omar waaw baax na baax na waaye yow xoolaatal ma tey rek waa baax na incha allah jërëjëf jërëjëf yal na yàlla fay Cheikh Omar Bara Sarr jërëjëf kontaan na jërëjëf jërëjëf. papa na nga def maa ngi sant waa alhamdulillah la def alhamdulilah ci jaar alhamdulilah maa dal nga baax alhamdulilah maa ngi sant bu baax sant bu baax ah papa dama di la ndax war nga xam ndey fi mu féete doom ak fi doom féete ndey bugguma dara lu ko naqari yéen wax dëgg yàlla yéen ñaan ñëpp laa yemale mais bi yoon sama yaay dafa la tooñ tooñ hmm. waaw xam naa ni man moom bu doon cent pour cent la cinquante yi wàññeeku na hmm? mosuma wax ak yow nii de papa li nga doon wax yëpp naan jabu jaabu waaw sama yaay ba jaam la ñing mhm. papa li nga doon wax yëpp am dëgg man gis nga man no man sama xel baaxul man man ah man xoolal xoolal dafa am rawaan yu may wan balaa bis bi yow lu tax waxoo ko woon kon balaa bis bi noonu laa ko xalaate woon ci avant bis bi mm-hmm. ngay toog xoolal mm-hmm. dërëm nii laa ko waxe ba ne ñing ñu nañu xalaat si moom. non mooy doomu haram. tigi tigi tigi tigi tigi ka wax la du awat fi xa fi fi fépp du fi daat kooku da ko war a donas genre ñu ngi yi. xanaa amoo man benn bis. ci fleur yi fële. waaw gis naa ko mu taxaw ak soodo foofu. waaw mu wax soodo ba ne ko loolu. waaw man xam nga ban baat laa dégg bu may egg. waaw si ñoom bàyyi ko sama loxo rek laa dégg. bàyyi ko sama loxo. boo ma bàyyi ko sama loxo bi la laa. Ah. wala lu xew. boobu na affaire naawtal bi la daa dëgg naa pitax kër yi jënd voyageur. ñun mooy doomu haram. voyageur lañ jënd voyageur. laay moo ko recherché. waaw laay moo ko recherché laay la ko laay la ko génne càqaj ba pare sànni yére yi ni ñun bu muy dem fi doon jooy. xol benn daal la. ñun moo am saas. Ah, ay suma fi fekkoon. yow bala fekkoon ma fi fekkoon dinaa ko nokkal nokkal nokkal booy caaxa njaay. man tey damaa man damaa sax man buy booy tey ñëng nu ma génnee fii Ablaye ñàkk fekk. laalu ko sax. déedéet laay laay kuur laa koy génne laay laale nañ de laay laay ah, laay. laay nokkal na ko. nokkal na ko nag bu fii laay la laa gi di laay ah, la dafa mer laay bon xol la bonul xol dëgg la wax genre yi baaxuñu si société bi ah, genre yi dañ leen war a tëral ci bi hmm. ñu rende leen su ma fi fekkoon dama koy rendi ma si bi jeex yow tamit ba a xamee affaire bi nii nga xam ni nga xamee. waaw doo ko am na yu may wan ah, ba bis bi. rawaan yu may wan balaa bis bi. waaw balaa bi bis bi lii gis nga li daje. te nag fi ne nii li tax man ma ma ma egg si kër gi fi mu ne nii mooy ba muy dugg dama leen ko waxoon ba ñu ngi di egg arrivé ñu ngi laal leen c'est pas normal. man ba muy sàcc sàcc sutur ñoo ma wax ak si sutur. waaw la xam ne dina def yëfi doomu xaaj si sutur. Ah, ah, legui nak mu ngi non nak legui soda gi nga dem la soda moo yenu peleñaa bi peleñaa bi yëpp sooda dégg naa laal dal na dal na ci kaw soda abdoulaye dafa wax ak soda ba pare ñangal kon frappé buntu bi wallahi tay neexul dere tay tay tay tay kay mom bu fakk da nga am ay wax de de dem wax bu wona ñaan ci wa wa mi du la may hmm. tay dina mel ni waa am sa du la may ah billaah genn jabu ci kër gi sama loxo yaay genn ci hmm ku lo wax loolu Ablaye

def lépp suur ko benn. mu jeex waxuma dëgg rek waaw ci sutura waaw kenn bañ a dem fële diisee. kenn du dem fenn. moo tax ma bëgg xam. tax kilifa laa moo tax ma bëgg a gérer lépp mu jeex. lépp nag suñ cuq la. neexul ba neexul waaye suñ cuq. Mhm. doom raam la bu ñu tuddee. yaay doom raam pàgg bi. dëgg la man mu wax mu ne ma dina ko débouché débouché naaw tal ko mu génn kër gi. mu ne ko loolu jaru ko nañu am am am ci jàmm. Eh! nii la demee papa. ah waxoon naa ko waxoon naa ko ne woon naa leen lii ñing ak jaañ la. waaye nag papa hmm. sama yaay moo ma jur de te lépp lu ñu mën a def it xool nu ñu defee ba mu indiwaat xale bi rek ñu def ko ci nànk ki sutura. Ablaye man li ma bëggoon a xam-xam naa ko. comme nag lii feeñ na sa yaay ak ñu ngi ñoo ko def li ma bëgg a régler naa ko régler ak fa non may may may li ma bëgg xam xam naa ko naa ko régler surtout ah, ok ku la aj ku ne ku